salaamaaleykum yéen mbokki jullit yéen mbokki taalibe yi yan cantaakoon yi kàddu yi may yëkkati dama ko yëkkati ci turu soxna Aida Saliou Thioune moom moo ko waroon yëkkatil boppam waaye liggéey bi mu nekk dakoo ko maylu muy yëkkati ay kàddu di wax ndax sariyaa ko tënk mu leen di yëgal ni ay wax day agsi fii ci moom di dégg ci mbooloo mi mel ni ñu mel ni dafa am loo da ko day digle ay wax moom de li muy digle na ko ñëpp dégg moom jàng alxuraan la digle ni ko sëriñ bi di diglee jàng xasaayit nekk ci cant gi leneen du waaye di wax na nga xam sa coobare bopp képp nga koy waxe moom de ci lii rek la ne lépp lu kilifa di doxal ànd naa ñoom ca loola na ko ñëpp déggee noonu mi ngi sant ñëpp di gërëm ñépp di ànd ñépp ñëpp ñi mu séqal ñii bokkam yi ñoom la àndal tey ñoom la àndal lëg wasalaam aousu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatullah ginnaaw bi ma leen nuyoo maa ngi ziar ñëpp di jéggalu ñëpp te jéggal ñépp di ñaan suñu borom boo leen di jéggal Eh, kàddu yi may yëkkati nag maa ngi koy yëkkati ci mboolem njaboot gi mboolem taalibe yi ndax ci taalibe yi laa bokk ci njaboot gi laa bokk waaye ci taalibe yi laa bokk eh, li ma leen di xamal mooy nun dana danoo am ci lu tënku dan di ay murit avant nuy nekk murit danoo nekk ay jullit ndax am murit mënoo ko doon te nekkub jullit faaw nga nekkub jullit doo ko nekk am murit kon ay am ay jullit lañu ci biir jullit yi waaye nag ay murit lanu waaye ay cantaakoon lañu kon noo ngi santaat Serigne Saliou jërëjëfaat Serigne Saliou. xew-xew fii fi xew nga xam ni sunu kilifa gi sunu sëriñ bi sunu lépp ci nun yàlla def na mu dem fa sangam ba Serigne Saliou. fekki na Serigne Saliou nuy xamal ñëpp ni ay murit lañu te ci ndigal rek lañuy tënku Serigne Mountakha Bassirou Mbacké xalif général des murit yàlla na fi yàgg te wér moom mboolem jabootu Serigne Touba gi moo joxe ndigal ne nañ ko yëpp sëñ Béthio nee na buñ ko yëbee sëñ Béthio buñ ko indee Touba nee na loolu day moo gën ci sëñ Béthio moo gën ci Touba moo gën ci Serigne Touba li gën ci yoonu murit nag gën ci Touba gën ci Serigne Touba kenn mënatul am lu ko ëpp sëñ Béthio de man waxaan yóbbu ne ma ba fee man ànd ma ak moom ci oto ba ba ca béréb bële mu ne ma bu fi jógee fii laa bëgg ñu def ma fi ñëpp nangu nañ ko ko suñ saal gël tàpp bi mu demee bi ko sëriñ bi jox ndigal li wax na ko ne. sëriñ bi de danoon nañ ko denc ca këram ga def nay ojo def nay vidéo yóbbu la fay doomam yóbbu la fay bokkam wax na ko ay taalibeem ba ñëpp jàpp nañ ni foofa lañ koy def mu ni ko yoonu murit day daa am lu mu baaxoo ndax sëriñ tubaa day man duma ma digle lu sëriñ tubaa dul digle du ma def lu sëriñ tubaa deful luul duma ca dugg duma ma ca doon dara kon lii ndigal li mooy na ngeen jëfe ndigal li na ngeen indi sëñ Béthio bu ngeen ko indee teg leen ko ci samay loxo dinaa def lépp lu ci war lépp lu ci war dinaa ko def ba annoncé nañ ma ni doomu sëñ Abdou Khadre Mbacke moo koy jullee sëriñ Cheikh Mbacke kasaalika li mu wax mooy li sëñ Mountakha wax sëriñ bi nee na. jox nañu foo xam ni hectare la ndax bàq ye biñ koy biñ koy sos waa kër Serigne Touba kenn ku ne dañ laam am fuñ la dagaloon Serigne Cheikh mës joxe ndigal ci ñu rob ci parcelle boobu nga xam ne moom lañ jox waa kër Serigne Saliou tey sëñ Béthio koy ubbi nee na nu bu ngeen ko fa defee nañ ko daal daal a seng wëral ko nañ defaloon Serigne Saliou loolu la wax bu ngeen ci jógee ci loolu na ngeen waaj te tabax ku nu ngeen ko bëggee te xam ngeen ni bàqee day autorisé wuñ kenn mu tabax fa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu